bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafiicina wa mawlaana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ibadallah ixwatal iman mustamiuna alkiram ashaaba samaha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 te ngeen jànd ak seen mbokk alxaaji oustaz Alioune mbay ginnaaw lool nag ñoo ngi doon lay ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di leen balaq di leen balwaq di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole jéggal ñoo ngi belal nuyoo ak ziyaar umma islamique bi yëpp di leen ñaanal jàmm ak wér di beral nuyoo ak ziyaar mbooleem Euh, suñu bàyyi xalif généraux yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal yàlla nañ fi yàgg lool suñu kanam te wér di ñaanal ak ziare mbooleem <clears throat> ñi nga xam ñu ngi ci lal hôpitaux yi yal yàlla saafara leen te fëgg seen bopp ñi nekk ci loxoy buur te buur bàyyeeku leen yal na yàlla woyefal seen mbir te yolomal ko ñi tukki ngir teraangaak mbirim alal ñu mën a teral seeni njaboot ak seeni bokk yàlla na suñu borom subhaanahu jàppandal leen yombalal leen lañuy wuti dañu desiwaat suñu njaboot fekk fi jàmm indi jàmm bàyyi fa jàmm yàlla sañ na ko mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal bi jaay sidna muhammad sallallahu taala alayhi wa ñu ngi jaale ñëpp nag di siyaar ñëpp mbooleem ñi fi ñàkk seen bakkan ci diggante bi ñu ngi jaal seeni mbokk di leen masawu di ñaan suñu boroom ñi dem yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen yal na àpp soriyaantoo yal na leen yéex a fekki te bu leen di fekki yal na yàlla jël ñu ci yërëm ci yërmandeem ak ci njéggalam yàlla sañ na ko mën na ko yal na ko yàlla defal fas yéen ñëwaat ak yéen fa yamoon ak yéen ci àjjuma yii génn xam ngeen ni sunu maam ju baax ji di sunu sang di sunu sëriñ di sunu lépp muy Mawlana Seexul Xadim Xadimu Rasul euh, songoon nañu téereem bii di mooy bu naafi ba li ñu ci xamoon ak ni ñu ko déggee woon wax nan kon ni ñu ko euh, jàngewoon te tey jii ñu fas yéene dooraat beneen téereem bu ñuy wax jësbul xuluub ah, jazbul qulub nag mooy ñoddi xol yi jëme leen ci yàlla ak yonentaam ba alayhi salaatu wasalaam di jéggalu nag mboolem xataa maanaam njuumte yi ak sabqu lisaan yi ndax ñun dañoo ferul sax iji waaye gis nañ ni jëmu ju mel ne sëñ ni mu toll ci xol yi ak ni ko nit ñi bëgge ak ni ko nit ñi soppe te mu yeete jàngale gindee lu ne mu bind ko ngir yërëm ñu ak bëgg bu ñu day suñu borom suñu borom am suñu yër yërmande rafetlu naa lool li ma xam lu mu néew néew ci mbindam mi ma partagé ko ak samay bokki taalibe partagé ko ak samay bokki jullit lii rek laa ci jublu ñaanit yal na ci kontaan yal na Sëriñ Tuubaa kontaan ci lii may def yal na jullit yépp kontaan ci lii may def di nuyu ñëpp di sàkku njëggal lépp lu ma ci juum bëgg mu rafet rek ak bu mu baax ak bëgg gu ko bëgg rek ak sopp gu ko sopp rek moom laa ci jublu ngeen comprendre ma noonu rek incha allah di nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag fas yéene door incha allah <clears throat> ci téeram bi nga xamante ne mooy jazbul qulub alhamduli maanaam bismillahi rahmaani rahim eh, téere bi nag dañu wax ni amul tarjumaan tarjumaan mooy préphasé amoon na ko sax ñu ni waaye maam Cerno rek rakkam ju baax jooju moo dindi tarjumaan ji ci lii ma dégg eh, niñ ma ko firile waaye dégg naa sëñ mag bi ni ko loo ci jublu mu ne ko ragal rek taalibe yi lii ni mu baaxee ni ko sunu boom nangoo ñu dem ba sàggan ak jaamu yàlla ndax lii nga ci wax ak li nga ko ubbee nii eh, loolu moo tax ma effacé ko waaye sëñ bii dégg naa waxaatu ci dara nag kon wax la rek ni la eh, amul tarjumaan waaye du tee li mu ci wax dingeen ci dégg ñaar rek ngeen ci dégg moom mii di jaam borom bi subhaanahu wa ay bëgg-bëggam ak li mu mébét ak boromam bi nga xam ni moo ko bind def ko jaamam def ko tam muy xaadimam yi mu ko yi mu ko yi mu wax ci moom ñetteel ba mooy rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne mooy buntub suñu borom subhaanahu wa ne sëñ Bamba du burle fa du jaar ci porte du jaar ci fenêtre ci buntu rek lay jaar direkt rek mooy rasulullah sallallahu alayhi li mu yàbbi borom bi yépp mi ngi ko jaarale ci sang bi alayhi salaatu wasalaam nga ne ne bu dul ñett ñii kenn amul cër ci moom boo xamante ne moom am nga maqaamam mu lay tudd mbaa mu lay wax ci lenn kon nag yal nañu ko yàlla fayal yal nañu ko yàlla fayal yal nañu ko yàlla gërëmal bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bismillah man kawnuhu liyabiin alal kitaabil mustabiin maa jamii niami alhamdulillah haqqul mubiin man kawnuhu liyabiin alal kitaabil mustabiin مع جميع نعمي أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يميم مصليا على الكريم قد الورى لمنعمي أشكر سال أرسل ماجد شكرا يلاقيه المزيد yàlla na ko yàlla fayal xaadimu rasul sëñ Tuuba nii la ko waa xisbu tariqiya di yëkkatee baat bi nag moo neexul waaye li ma ci yéene woon mooy ku ko dégg sa xol sedd waaye nag du sama baat bi mbind mi moo neex sëñ Tuubaa dafa ne alhamduli xaqul mubiin xeeti cant yépp ñeel na yàlla miy dëgg tey aji biir man kaw kawnuhu liya biin moom mi nga xam ni nekkam gi bir na ma cëng alal kitaabil mustabiin nekkam gi maa ngi ko tegtaloo ci alquran bii eh, moo moo ko wan alquranam bii ci jàng ka laa jaar ba xam ni kon yàlla rek a yàlla nekkam gi moom dong moo wér cëng biir na moom dong fi nekk bu dul moom leneen nekku fi bu paasee alquran ji maa jamii niami ànd ak mboolem xéewal yi yi ngay gis yëpp yàlla nee na wa fi anfusikum afalaa tubsiruuna su ngeen bëggee xam ni ma mel xool leen ci seen bopp wala ngeen xool wa fi wa fi wa fil aafaaqi eh, xool leen ci alam alam bi bu ngeen bëggee xam may kan loolu alxuraan la mu ne naa waxi sëriñ bi génnul alxuraan ak xadiis yonent bi sallallahu alayhi lu mu ci wax rek lu nekk soo seetantalee tuuti rek ayab alxuraan dikke la mbaa xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikke la sëñ Tuubaa ni maa ngi sant sama borom mbaa mu ni xeeti cant yépp ñeel na yàlla moo ko yàlla yàlla mi nga xam mooy dëgg te aji biir ji yàlla mi nga xam ne mooy mooy dëgg te aji biir cëng waaw man kaw kawnuhu liyabiin moom mi nga xam ne nekkam gi biir na ma cëng man xaadimu rasul man xam naa ne yàlla lu nekk la kon moom bokk la ñu naan jee jee n'existe pas sëñ Abdul Aziz Al Amin rahmatullahi alayhi dégg naa ci tuddu kenn da mu ni dafa am conférence bu mu doon def ca université am jenn jóg ni ko mais sëñ bi yéen dama dégg ngeen naan yàlla yàlla yàlla yàlla waaw mais ana yàlla sëñ bi ni ko waaw tey la lan mu ni ko tey samdi samedi mu ni ko dama nga jàpp ci loxob samedi indil ma ko ma wan ma ma jàpp ci loxo yàlla wan la ko bu wax la ne moo am yëpp tontu léppam jawaabu kulli shay'in ba'da su'al mu ngoog moo dama ni man kaw kawnuhu lee biin moom mi nga xam ne nekkam gi man xaadimu rasul bëri na ma cëng te biir gi tam alal kitaabil mustabiin nekkam gi maa ngi ko teg tegtaloo ci alquran bi wane nii yàlla kenn la ndax lu dul alquran du dara fiihi nabaukum wa nabau man qablakum wa nabau man baadakum ila yawm alqiyaam alquran lépp a ngi ci lépp lépp lépp lépp mu ngoog lépp a ngi ci waaw de dégg naa sëñ Babacar Si dafa am jenn waaye ju ñëw xam naa bëggoon ko diingat ni ko dëgg ne alxuraan lépp a ngi ci mu ne ko waaw waaw mu ne ko ndax sama tur mi ngi ci alxuraan nee sëñ bi ne ko noo noo tudd mu ne ko kuuka kuuka laa tudd sëñ tu sëñ ah, mu ne ko wa tarakuuka qaa'iman qul maa inda llaahi xayrun min al-lahw <laughs> wa izaa ko kon nag lépp a ngi ci sëñ Tuubaa na ginnaaw tegtal ci alquran ji xamee ni yàlla rek kay yàlla mooy def lu kenn mënta def moo wax lu kenn mënta wax amul ku mën a wax lu yàlla di wax mbaa nga wax lu mel ni moom waaw law ijtamaa al insu wal jinn alan yaatu bi misli hadal quran laa yaatu bi misli jinn yeeg nit ñi ñëpp bu ndey la woon ku ne indi sam xel ñu indi lu mel ne alquran du ñu ko mën a indi kon lool doy na ci sëñ mu ni lool mu yàlla kenn la ak lan maam mu ni maa jamii ànd ak mboolem xéewal yi xéewali oxygène bii de noyyi ngelaw saa woo ne <sighs> rek génne nga gaz carbonique soo ne xëcc ñot di dugal nga oxygène te oxygène boobu bul ko xeeb li ngay noyyi muy dugg mooy oxygène mu am benn xista bu ma ci doon nettali fan yee jenn waay joo ni dafa feebar amoon alal julul jeex yàlla doon nag feebar dab ko dem ci docteur yi docteur ni ko danga nga da nga manqué oxygène Mm, léegi nag il faut ñu defal la ñu dàmbale ko defal oxygène huit heures ci suba ba dix huit heures ñu door ne oxygène bi doy na waaye euh, médecin bi comptable di bind di bind di di compter di bind compter ba ni ko foox facture bi mu ne ko kii nag mu ne ko yaa ngi yaa ngi war a fay cinq cent mille neuf cent nangam nangam <laughs> rek waa ji commencé jooy jooy yi métti docteur mi ko ah dafa seer mu ne ko déedéet waaw ma jarul jooy waxal rek lan la mu dama xam ne ba ma juddoo ba léegi yàllaa ngi may jox oxygène may noyyi fu ne ma dem fa lu ne ma dugg ca te kenn mosumaa jox facture yàlla teg ma nattu bii rek ma ñëw di faju ñu laaj ma cinq cent mille yu ron ci diggante huit heures ak dix-huit kon nag ñun am man aw ma aw ma lu ma fayee sama borom subhanahu wa taala waaye xalaat boobu jar na di xalaat ci ñun ñëpp war nañ koo xalaat ma kon xéewal yu xéewali oxygène lekk ba suur xéewali jàmm gëmmentu nelaw xiif lekk yooyu ak i sentiment ci lañu xame ni yàlla mi man képp moo mën a roof loolu nit doon doy na xam ni yàlla yi rekk yàlla maam loo ca teg mu ni ahmadu rabbi al azim kon maa ngi sant sama boroom sama boroom bu màgg bi xamdan kasiiran laa yarim cant gu bari gu dootul deñ abadan musalliyan alal karim may aji julli ci aji tedd ja xaadal waraa li munimi gisal te mooy kiy wamat jaam ñi jëmale leen ci seen borom mii borom mii borom xéewal xaadal waraa li eh, nee naa la Sëriñ Tuubaa téeréem bi bu paasee borom bi subhaanahu wa taala mi ko bind ak jaam gi mu fas yéene doon nekk xaadimam rasul di liggéey liggéey kon yonent bi sallallahu alayhi tudd ci keneen ku dul rasulullahi sallallahu cant yi ma la wax nii yàlla la wax na fu mu ko teg wax na it euh, fu mu tegtaloo ba xam ne yàlla kenn la téere alxuraan ak jamii niami sant nag borom bi cant gu wér cant goo xamante nii dootul deñ ba abadan mun a gees jëm ci sangam bi muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam daan ni mu salliyen alal karim may aji julli ci aji tedd ji maa ngi julli di ñaanal xéewal aji tedd ji maam koo bëgg a wax mu ni xaadara waraa laa wax li mun ami te mooy kii wommat jaam ñi jëmale leen ci buur bi buur bi xéewal ah, ba tey leeragul de mu ni ashkuru sal arsil ma jiit maa ngi sant borom aras mu tedd ma borom baa ngi ñëwati lii ma xam ki may ñaan yàlla julli ci moom mooy Moustapha mi womat jaam ñi jëmaleen ci borom bi subhaanahu wa taala ashkuru salaasil may sant borom aras bi nga xamante ne mooy aji tedd ji te ku tedd moo la teral shukran yu laaqiihi mazid cant goo xam ni dana dajeekuk ndollent cant goo xam dana dolleek ndollent ci biir ak ci biti nag musalliman alal waxiid may ñaanal xéewal ku ñàkk ka moroom <laughs> maa ngi ñaanal xéewal ku ñàkk ka moroom ba tey nga ngi ci Moustapha gis nga mu sàlliyan da ngay tëb xaadal war a tëb ashkuru sal asil majid tëb shukran yu laaqihi ni musalliman musalliyan musalliman ani musalliman alal waxiit may ñaanal xéewal ku ñàkk ka moroom mooy rasulillah maam loo koy sante mu ne bi kalkali yi wa kallimi ci sama xol ak sama làmmiñ ci laa koy sant shakartuhu is xassani sant naa ko lool ba mu ma ba mu ma jag caq bu ma xamante ni kenn amu ko ba mu ma jag léeg ngërëm ak way wax ni kenn amu ko maam loolu mooy lan mu ne bi xidmatil maaxisani bi xidmatil maaxisani yàlla yenkeewal na ma tur ak tampon ak signature boo xamante ni kenn amu ko te mooy liggéeyal aji farja bàkkaar te kawe daraja liggéeyal aji aji kawe ja farja bàkkaar te kawe daraja loolu maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax daraja ju nekk wàcc na cër wu nekk am na awliyaayu rahmaan yi bari nañu ku dem na cër waaye chakartu isqasani bi xidmatin maaxisani saa xidmatin fi la alani ba ma ko ba ma yënkewel boobu caq ak boobu mandargaal saa xidmatan fi la alami saa xidmatin fi la may aji liggéeyal aji liggéeyal sama borom ci yonente bi sallallahu ci lu biir may liggéey ko tam man may xaadimu rasul turu rëy noonu xaadimu rasul am na ci saxaaba yi ku tuddoon noonu xaadimu rasul waaye yàlla nattoo woon ko bu musaan génn ay boori timis rek day mel ne lu mel ne gaynde di ko topp dootul dem mooy ragal mu dema na jant bi sooyte dootul ñemee génn ndax li muy gis ñu wax ko yonent bi sallallahu alayhi mu ni ko soo dematee ba di ko gis soo ko siinatee rek nee ko yow jaamub yàlla bi xamal ni man may xaadimu rasul bu dee nag gëm nga yàlla ak yonentaam dama bëgg nga wàññee ko bañ a timaa topp man duma dara ci yow séqoo man dara amoo ci man cër amoo ci cër soxlawu ma la may xaadimu rasul waaye bi mu demee ba loolu feeñuwaat ko mu wax ko ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee kooku de loolu dafa nañ groupe sukk tallal loos wi yëngal geen bi bu wan ko ginnaaw teg giirug dunam déggaatu ko gisaatu ko kon tur ah tur wu la sëñ ba suñ tubaa nag ni saa xidmatin fi la ala may aji liggéeyal ko nag ci lu biir lahu wa fakka wala mii te moo dagg samay jéng dagg na samay jéng ba dara mënatuma gàllankoor ci liggéeyal ko xam nga bari na ko jóg di liggéey rasulaay waaye seytaane gàllankoor la ba mënatu loo liggéeyal kenn wala bakkan gàllankoor la wala pouvoir gàllankoor bari na koo xamante ne pouvoir ak sàmm photo yi moo ko tee liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ko waxee du départ wul njiitu réew ma waaye bépp poste boo xamante ne ni dox na sa digganteeg jaamu ji yàlla booy ba nga tekk ci suuf xam ni sa noon a ngi noonu koo koy iblis ci yow Sëñ Tuubaa nag ni lahu wa fakka wala mi te kooku moo dagg samay jéng bakkan bii mën a lotuma gàllankoor ci dara du dërëm buñ may jox du ndomb ak tànk croix la seen denouru du lenn loo xamante nii moom moo tax di sonn ngir tubaab bi kontaan ci man ba jox ma ko mbaa yi àddina yi kontaan ci man ba jox ma ko amul wax nañ ni eh, la la kii Maamoor Anta Sali bi mu bi yàlla dogalee mu wàccub liggéey Lat Joor la tombeeloon dégg naa ñëwoon na ci eh, eh, nit ñi dox ci diggante bi am na ñoon ci moom sa ni ko ah Lat Joor de sa wëla réew way jur la woon bëggoon nañu daal soo ko manee ñu ànd bis dem jaala ji ko ah nga feddale sa kóola rek moom bu defee mu mën laa fal li mu fayoon sa way jur te it da nga ci am xéewal yoo xamante nii daa ko mën di xéewaloo eh, ndax lu mel ne ay peñu suukar ak ki ay wargaa ki kafeek yooyu buur yi dañ koy am te ab sëriñ moom mënta ñàkk loolu wax ba géexal sëñ Tuubaa ni ko ah kanta jëmmi jaale ko day bu ko jot mayee war na mën a nekk ndax loola kóllëre la gu mu séqoon nag waajur wi waaye kanta dem fa nag ngir lu ma def moom loolu moom moom doy na sëkk daal ci biir nag aw bay danni yad yi li muxnin karimin naafiin samadin laa dara darahima taati min suraytiini sama loxo bii li muxnin yàlla mi woomal te du jeexal te ku mu naddi dootoo jeexal karimin te ku tedd moo la teral ndax moom daa tedd naafiin di borom njëriñ ci biir ak ci biti din mooy ki ñëpp jublu te jublul kenn moom laay koy tàllal waaye laay daraahima waaye du ma tàll sama loxo si mukk ngir ay ndërëm ndërëmaan yi nga xamante ni taat yi ma ngay dotti ko min soloy ci mbuur mbuuraan yu ndaw yii moom sa tudd leen ay buur mbuur mbuuraan la leen tudde kon loolu sëñ tuñ waa raw ji loola wax mu ni laqita bidayan bima yuhibu madiyan wa li daaril karamin li daaril karamin ya rabbana ya rabbana ya rabbana asku sayana bil muntaqal muhtarami lil mustafa lazi turam yal nañu ko yàlla fayal <coughs> bëgg ngeen bëgg rek da yàlla xam na ko bëgg ngeen kontaan rek waaye yaakaar naa di ngeen ci bég ndax du man waaye sëriñ bi la lahoo xitaabi daaya sëñ tubaa nee na moom laay waxal moom lay ñaan bi maa yuhibbu maadiya maam loo koy ñaan mu ngi ci lépp loo xamante nii soppi téef la sopp téef sopp téefu gaa yu baax ya loolu lay ñaan sama borom yàlla yow lay waxal man yow lay ñaan li ma bëgg kenn amu ko yaa ko am moo loo koy ñaan moo ne bi maa yoo xam ne maa lépp luy baax yi nga gërëm doon la ko ñaan nga leen ko may man xaari moo Rasuul maa ngi la koy ñaan wa qaada lii axraad yaa wommatal ma njomb téef ya yàlla nga ma wommatal njomb téef ya am na xeeti may ak xeeti xéwal yoo xam ne jomb na yaafus jomb na ko tayel jomb na ko bëgg àddina jomb na taalib iblis iblis man wa qaada lii yàlla nga ma wommatal axraad yan wammatal ma njomb téef ya yi nga xam ne jomb na yaafus zaadan lit daaril karam yi mbir ma di ndollenti ci yow ëllëg yomal xiyaam ëllëg yomal xiyaam yaa ngi ma wommatal ma ay njomb téef yoo xamante ne di nga ma ko dollee ëllëg yomal xiyaam bu ñëpp ne teg nga may ma xeetu teraanga yooyu ak xeetu njomb téef yooyu nga xam su ko jox yaafus yaa rabbanaa yaa rabbanaa yow sunu borom yow sunu borom yaa rabbana yaa rabbana yow sunu borom yow sunu boroom yaa rabbana uskur saayana yow sunu boroom yàlla nga sant sunuy jëf sama jëf sama wax yàlla nga ko sant yàlla nga ko gërëm yàlla nga ci d'accord yàlla nga ko questionné ci darajay kan mu ne bil muntaqal muxtarami bil muntaqa ci darajay ki ñu tànn te aji ki ñu ormaal ci darajay ki ñu tànn ba pare di aji ku ñu ormaal mooy kan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax mu ngoog lil Moustapha lazi turaamu ñeel na Moustapha ma nga xam ni moom la ñépp di sàkku salaatun wa salaamun lahu wala nga ne lahu salaatu wa salaam mahamti daahi kulla am lahu salaatu salaam sama julli ak sama sëlmal ñeel na ko ci moom lay julli ci moom lay sëlmal boo demee ca fële ca mooy bu naafiya ma ngay wax salaatu sitta bi matxe sitta taati xibatta gis nga moom la dëggalaat fii lahu salaatu wasalaamu ma xamtiddaahi kulla am rumtu min al mukarram salli ala man juila xutbul wujuhi xutbul wujudi xina xall xinak xalla wa alihi wan xall wa sahbihi wa karrimi seet tët tët tët tët kenn mësul gis lii ah mu ne lahoo salaatu wa salaam sama julli ak sama sëlmal ñeel na ko ma xamti daa yi kullu aam ànd sama tagg wii at mu jot xëyuma gontuma dew ma fenn ci biir laay nekk julli ci moom ak di sëlmal ci moom at mu jot rumti minal mukarrami maa ngi sàkku ci sama boroom salli ala man ju'ila mu julil ma ca ka nga xam ni moom la ñu def xuddul wujudi xëy na xàll mu mooy kilifa mbindeef yi te waxtu bu mu wàcce mooy sangu mbindeef yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Sëñ Tuubaa nee na salli wa ak salaatu ak salaam yi ma wax yëpp yal na ko yàlla def ca ka nga xam ne moom la def sangu mbindeef yi keroog ba ko yàlla sosee yàlla daf ko ni xalaqtu ko li ajli wa xalaqtul ashyaa li ajlika mbindeef yëpp yëpp yow laa ko rafaatale ndax yaa ma ma kenn jaamawul kon yow pour man nga ça m'appartient waaye nag nit ñi mbindeef yëpp yow lañu soo gisee yàlla ni julli leen ci moom ñun mënuñoo julli ci moom xamuñu ni ñu jullee ci moom moo tax yàlla mi xam ni ñuy jullee ci moom xam dëgg dëgg dëgg dayoom ak maqaamam moo wax ñu ni salli yàlla nga ñu jullil ala man ju'ila qutbul wujudi xiina xalla ja ki nga xamante ne mooy sangu mbindee fii kere ba nga ko bindee ba léegi yàlla nga ñu jullil ci moom boo gisee fële ci salaatul faatih mu ne xaqa qadrihi wa miqdaari xam yaa xam kemtaa xam kemam xam tolluwaayam yow koy loolu loolu yow kon jullil ñu ci moom wa alihi zawin naxal mook waa këram ñay boroomi may wa sahbihi wa karrimi ak i sahaabaam te nga tëral leen ñu ngi lay ñaan loolu yàlla nga julli ci moom sëlmal ci moom moom mi sang di ba bindee ba ne moom moom la bindaatuloo keneen ku ku doot ku tolloog moom wala ku muy bokkaaleel ci càppaacoleem gi waaye moom ak i waa këram doom yeeg soxna yi ak mbokk yeeg askan wi yàlla nga defal ñu loolu ci moom wa sahbihi wa karrimi te defal koy ay saxaabaam Ababacar Omar Ousmane ak ña doon xeex Badar ña doon jaayante ba lislaam am doole nga bool leen ci googu la julli wa karrimi te nga teral leen àdduna ak alaaxira salli alaaman jaal yàlla nga ñu jullil ca ka nga xam ni def nga ko xayru nabiyin fuddila muy gën di yonent moo leen xëpp ngëneel fuuf xëy na abu nan jadalaa te booba maam aadama tiin la du woon dara allahu akbar fii tiinihi wa azimi yal na ko màggal faw abadan wa salliman yaa rabbana te nga sëlmal yaa rabbana yow sunu borom ala xitaamil anbiyaa yi ka nga xam ni moo mujj ci anbiyaaw yépp moo maam koo bëgg wax mu ne yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi laay wax moom rek déedéet mu ne wal mursalin asfiyaa yi ak ña yayoo maanaam ak ña ñu ña ñu yónni woon al asfiyaa yi te muy seen tànneef waaw yàlla nga julli ci ñoom ka yayoo ka yayoo ngërëm ka yayoo ñaan te mooy seen tànneef xoolal dafa am ñu ni maa ngi ñu ci loolu gis nga li naa la téere bi yàlla yonent bi ak moom nga xool moom fi mu classé boppam di jaam boo xam jaamu borom ma jaamu yàlla la boo xam te ni kenn moomu ko te it du jaamu kenn ku dul moom du ñaan kenn kenn ñaan amul lu muy bëgg ci kenn lu ko nit mën a defal loolu suñu borom subhaanahu wa taala moo tax ba mu nee rasulullaay dann rasulullaay ne ko yàllaa nga ne mu ne ko du dem bàyyi la fi lu may ñaan ci yow laa koy jaar ndax yaay buntu borom bi waaye dégg ko mu ñaan ko kër mbaa ñaan koy doom mbaa mu ñaan koy passeport mbaa tukki déedéet lépp lu ma ko ñaan rek alaaxira tax muy jëm ndax gëm na ne alaaxira mi ngi sunu kanam te dana ñaw mu ni salli ala man joxe nga nu jullil nga xamante ni yaa ko def muy xayru nabiyin fuddila muy gën ji yonent te gën gi mu gën yonent yow yàlla yaa ko gënaleel yaa ko gën ci yonent yëpp ndax mu ne ëpp ngëneel fuuf ndax xëy abu nan jadala bi ngay gënal ci mboolem loo bind ba nga ko bindee mu lay jaamu ci planète par planète te ci leer yooyu ñu bind planet yi ci ak leeram la ndax yàlla yaa ngi tibb ci sag leer bind ci muhammad sallallahu alayhi wasallam xabada xabdatan min nuurihi fa qaala lahu kuni mu bind tibb ab tibb ci leeru boppam moom sunu boppam subhanahu ni ko nekkal muhammad leer googa mooy jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla moom képp ak boroomam subhanahu wa boole boolewu ci wax boolewu ci bëgg dara boolewu ci xemem dara lu may jaam borom bi subhaanahu la ak sàkku ngërëm borom bi subhaanahu ndax loolu lañ ko bindee ci la yàlla bindee planètes yi bind ci asamaan juróom-ñaar géej yi juróom-ñaar ak jawwu jeeg li ne ci seen biir bind ajjana ak safara kursi yu bind jinne jinde nit jinde law laxwu ak xalamu bind e, tawxiid bind liimaan lépp mu bind ko sunu borom ni ko nag dinaa la reconnaître ba àdduna bi di tukki ku la reconnaître du ma la reconnaître même planète yi yëpp ci sa leer laa ko bind yaa xam nag ñaata planète la yàlla bind waaye planète yëpp yëpp ci leeru Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ñu ko bind bu doon a Muhammad sallallahu alayhi wasallam dara du xew moo tax Sëñ Tuubaa ni bi ngay kay gënalee ci mboolem yonent yëpp xëy na abu nan jadal booba sunu maam aadama mi ngi ci tiin ndax tiin mooy suuf bi nga yàlla bindee aadama ak suuf mooñ ko ba pare defagul dara ci moom boo fekk ne Muhammad sallallahu alayhi wa doon li mu doon mu ngoog moom la sëñ Babacar di wax te waaye mu la rabbi waa Adama bay na maa yi wa tiini waaw mu ngoog kooku beneen wax la bu sori <laughs> ma ñi daal kenn du ñooma waaw ah, waaw nee na fii tiinihi wa azimi yal na yàlla màggal faw faw faw faw wa salliman ya rabbana da nga sëlmalal ñu yow sunu borom ala xitaamil anbiyaa yi te ka nga xam ni moom mujj ci anbiyaa yi ci yonent yépp wal mursalina ak ñi yàlla yónni al asfiyaa yi ak ña yooyoo ña ña ña ñu yónni te yonent sallallahu alayhi wasallam mooy seen tànneef moo wax la léegi nag ni la euh, ginnaaw jaamu googu mu jaamu bi yàlla nammee mu nekk nit sababu ñëw fii ci kaw suuf ak doon nit yàlla ngi ko jaaral ci maam aadama waaye kon ndegete euh, brin almet bi mën na taal gaz bi waaye gaz bi tam mooy tax ataay ji ñor <laughs> allahu akbar tet tet aadama bu du woon ak muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn du ko bind waaye sababu ne muhammad sallallahu alayhi nekk nit mu ngi ko jaar ci aadama ndax aadama mooy abul bashar waaw yonent yi wàcc yépp muhammad a ci gën boo boo nee moo xam ci gën rek man mënatu mënatu ci teg leneen moo ci gën moo ci man mooy habibullah mooy soppe suñu borom subhanahu wa taala waaye ni ñu koy wooyee ci jinne yi ak ni ñu koy wooyee ci géej gi ak ni koy wooyee ci aalam bi ak garab yi ak ment yi euh, continent bu nekk ak nañ ko fay wooyee bokk ak ñun ñii ni ñu koy wooyee donte yàlla baaxee nañu nag ba nu xam ay turam waaye ñun ni ñu koy Muhammad ibn Abdullah muhammad rasulullah sallallahu moo gën a siiw am na yeneen tur nag ay taaha ay yaasin mutahhir muzammil eh, yu bare bare bare bare mu dassir yooyu ay turam la yoo xamante ne bu ci ne am na lu muy signifier ca ca contenant ba mu nekk donte yàlla xamal nañu ko ndax moom sabab mu nekk ni dem ngi jaar ci ma aadama alayhi salaam moom la sëñ bi wax ni ni ki yeyoo cant tey di tànneef ci yonent yëpp maam koo kan la mu ne imaaminal muazzimi kooku mooy mooy kooku mooy sunu njiit mooy ku ñu màggal wa salli yaa sa naam yàlla nga dolli musal yow mi buur bi xéewale ala rasuli rahmati ci sa ndaw la ndawal yërmande la baabi niqmati kooku mooy xomb buntu texee di sababu kullu nasabin moo tax mbindeef sosu wasalliman yaa di yàlla na nga musal faw yow mi nga xam ne ñépp ci yow lañ jublu yàlla na nga musal faw muhammad sallallahu alayhi wasallam ala nabii muhammadin sa déyaale kon ba te mooy yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam ñaan yi yàlla na wàcce ci sa déyaale kon ba di muhammad sallallahu alayhi wasallam moom rek wa alihi ak waa kër wal xamadi ak way sant ya wa kulli rasumi ak ña leen di roy ila yawmil qiyaamati ñaan gis sëriñ bi di ñaan ginnaaw ba mu taggee rasulullahi sallallahu alayhi wax ñu mooy kan ak fi yàlla jaar ak moom ci mbëmbëstal ak junj ci la leerale suñu njiit la kooku ñeel na ko ak màggal ak kaweel mu ni kooku boo ko xamul mooy boroom xéewal mooy ndawal mooy ndawal yàlla la nga xamee mooy ndawal yërmande mu rahmatul daat mooy kado yërmande gu yàlla yónni ci ñun waaye mixlaaq baabi niqmati mooy ngom bi buntu texee di bi yontu yàlla moom salaas ñëwee ci la ñu tëj bépp ngomb maanaam bépp caa bépp kànnaar bu doon ubbi bunti bunti texee di fecc mi tëgg mi naan géeg njaaloo gi sàcc géeg rey bakkan gi yooyu yëpp nee na miqlaaq baabi niqmati Muhammad sallallahu dafa ñëw tëj bunt yooyu ndax dafa fexe ba nit nite ndax njaay àll gënu nekkee woon ak bàyyi ma gënu nekkee woon yonent yàlla moom sallallahu moo ko fi jële moo tax mënu ko miqlaaq baabi niqmati kooku moo tëj baa bunti moo moo tëj ngoom bi texee diya mu ngoog koy wax maam mu ni sababu kullu nafsin bi laay wax kay kooku mooy mbindeef moo ko mooy moo tax ñu sos mbindeef yi bu doon moom mbindeef du am li yàlla bind lépp sababu kullu nafsin moom la wasalli man yaa di yàlla na nga ko musal faw yow mi ñëpp jublu te jubloo ci kenn mu ngoog yàlla nga def loolu lépp ala nabi yi muhammadin te sa deeyaale kon ba te mooy muhammad sallallahu alayhi wa aalihi ak waa këram wal ak way sant ndax kon am na kéefar goo xamante ni ku ci jóge sant rek nga war a def keroog ba ñu demee ca najaasi yu te jaafarul sadiq nekkoon chef de délégation keroog bi waa Quraysh yabalee ay nit ni ñu ñëw yow najaasi ay seytaane lañu ay yéefarañ taal nañu fa aw ay ba pare daw ñëw foo bëgg a yàq dëkk bi delloo ñu leen ñu rey leen najaasi ni indil ma leen leen ñu indi leen ñu génn ñëw toog bi ñu ñëwee toog najaasi ni leen yéen ñii lu ngeen tax ngeen leen di dab si ki représenté woon yéefar jóg ni ko ñii ay saay-saay lañ dëkk ba yàq nañ koy yaxeet dem nañ ba suñu jaam yi sax dañ noo yàpp jëkkër respectatul jabar doom respectatul bàyyi kenn amatul kàddu ngir Muhammad di woote égalité di woote bennoo nee na daal ñun ñëpp ñoo yam te loolu ñun xamuñu ko suñu maam xamaatuñu ko suñu maam najaay su daan ne yow jaafar ñii loolu lañ jot la seeni mbokk jaafar jóg ni ko ñun day ca ceddo lañu nekkoon di naan sàngara di siif jigéen ñi di dab nit ñi nangu seeni alal di àddu kalpe jombuñu dara yara suñu dara suñu dara lu neex waaye def kenn terewul dara am ku judd ci suñu biir di xeet ñu bokk wenn xeet di nit ni ñun yàlla di wax ak moom ñuy dégg alxuraan di wàcc ñuy dégg mu wax na lu baree bare ñu dem ba jombati nañu téye bitul sàngara di ko naan jombati nañu di kar ay nit ci àll bi de néewal doole nangu seeni àll ñu ne ci lii lañu nekk ah ci kàddu gu gàtt na jóg taxaw daan ne yéen li ngeen di wax ak li ñu yónni woon yonent yàlla Isaa mi ngi mel ne liy ñuul ci bët ak liy weex ci bët dara taqalewuñu fii ak yéen a ngi fii ci sama territoire nag picc musiba du leen naaw mukk tiim leen toog leen ba kenn laal leen kooku mooy wa kulli zi tarasumi ñi nga xamante ne nii ay ay centaakoon lañu ak way jomb ay jombkat ya mooy ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi jomb nañu defati lu ñaaw maar ñu di ko waxati kon ñu nga ca ka nga xamante ni mooy buur bi yor lépp ànd ki mu yónni mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi nee na yaasal baqaa yaasal baqaa wal qidami min ni taqabbal qidami wala turdi za taqaddumi biha muniiru liqami zaaka xiyaaru arabi zaaka muniiru larabi zaaka sabilu talabi tabibu ahli saqami salli ala baabi huda naayil mada muulin nada laysil ida maahir rada baabil ula wal karami wa salliman alal amin seet teet teet waaye waaye sëñ bi dëgg dëgg sunu mag ñii ku leen am cim réew réew dëgg dëgg dëgg looy jaax looy jaaxleeti ban maamu réew yi ñu sësol yépp bu ko am amul xanaa bu nee ba xeeb ko nag bàyyi ko fi dugg ci leen nag booban la ñu problème waaye kii de jaanam wàcc na joxañ nañ ne fu mu war a joxañ xiir nañ ci ñoom ñu war a xiir dem bàyyi ñu fi ne toog di ñu seetaan léegi nag li ci des nag kudd kafe la borom a koy suukar sëñ Tuubaa nee na yaasal baqaayi wal xidami yow mii borom des ga te buur bi jiitu ndax sa jiitu amul fu mu tàmbalee sag mujjit amul fu mu yem sëñ Bamba nee na min ni taqabbal qidami yàlla na nga man nangul sama liggéey bi mooy jël nit ñi di leen jële jëme ci toskare jëme leen ci ngërëmu suñu borom subhanahu wa taala boobu liggéey yàlla bu mu yàq bu yàlla bu mu yàqu min ni taqabbal min ni qidami yàlla nga yàlla na nga man nangul sama liggéey bi wal turdi za taqaddumi yàlla na nga ci gërëm loo borom njiit boroom jiitu ga wal turdi za taqaddumi yàlla na nga ci gërëm loo borom jiitu bi te mooy Moustapha sallallahu alayhi wasallam jiitu ñëpp ginnaaw yàlla mooma yàlla moom ko bindee bindul keneen moom rek la bind ñi des ñëpp dafa leen ko rafaatale moo tax mu ni yàlla na nga ma nangul sama liggéey bii muy lislaam bii ma nekk ak yoonu murit yi nga xam ne moom laa nekk di di ko tabax waa tur di sa taqaddumi te nga gërëm loo nag boroom jiitu gi ma yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi tax ma di ko def ak di sàkku ngërëm bihaa muniru liqami ci moom la yoon yu leere de lislaam dëgg inna diina inda al islaami diina inda laahi al islaam wa man yabtagi xayral islaami diinan falan yuqbal minhu wa fil aaxirati min al xaasirina moo tax bi nee na bihaa munuuri muniiru ci moom la moom la yoon yëpp leere zaaka xiyaarul arab yi koo koy tànnee fa arab yi zaaka maniilul arab yi aji fajja aajo zaaka sabibu talabi kookay yoon eh, yoonu sàkku téef sàkku téef li yoonu sàkku téef loo bëgg am rek kookay yoon wa sabilu talabi kookay yoonu sàkku téef wa looy sàkku ci yàlla jaar ko ci moom loo bëgg àjjana ëllëg jaar ko ci moom jàmmi fiit boo ko jaarul ci moom doo ko am kon saaka sabilu talabi kookay yoonu sàkku téef wa tabibu ahlu saqami kookay doktooru way texee di ya docteur way texee di ya ñi nga xam ni jaar nañ ci yoonu texee di muy yoonu kéefar ak yoonu naafiq seen docteur a ngi ni moom la yàlla yónni ci ñun ku am noppi dégg ko ak xolub dégg ko kon faju nga te malade bu nekk kaka faj mooy docteuram kon tabibu ahli saqami koo kay docteuru way texe di ya ku dégg woote bi wala nga jàng alquran di nga xam ni kon Moustapha sallallahu alayhi wasallam ku ko jàpp toonawu nga ku ko jàppul jàppoo dara perte nga àdduna ak alaaxira moo tax mu ne salli ala baabil huda yàlla nga dool xéewal ci ki xam mooy buntum njub sallallahu alayhi wasallam naayil mada muli nada kookaa raw ñëpp mooy naddi ay may lay sil ida daa koo koy gayndeeg noonu ya mooy dàq alkaande baabil ulaa wal karami kookay buntu kawe ak teraanga wasalliman alal amin yàlla na nga musal faw moom mi nga xam ne mooy amin te mooy ki yàlla wóolu muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam bi nee na yàlla yàlla nga julli ci buntu njub kuy buntu njub mooy Moustapha sallallahu alayhi yaasiin wal quraan al hakiim innaka la min al mursaliin ala siraatil mustaqim kooku mooy buntum njub mu nga woog comme mooy buntum njub nag sëñ bi ne ne maa ngi ñaan yàlla nga julli ci boobu nga xam ne fo foo yaakaar ni xeetu julli gu nekk rek sëñ Tuubaa julli na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu te buy julli ci moom du yem da cay julli ba pare tagg la wax la lu keneen dootul wax ci yow moo tax salli ala baabil huda yàlla nga dolli xéewal ci kiy buntum njub naa il mada mulin na daa kookaa ñëpp te mooy naddi ay may gisal da ngay nekk ci réew moo xam ne réewum laïcité la amoo salaire amoo indemnité sañoo ko laaj amoo ci droit muy loi yoo fi fekk ñu teg ko te noonu la say maam nekk woon ba dee bakka fi sa bàyyi nekk ba dee bakka fi noonu nga fas yéene nekk bakka fi say doom continué ca loolo mooy ci ngeen dëkk waaye bokku leen ci waaye nag yàlla mi dara taw tewul moom du la bàyyi daf lay teg loxo bis bu nekk at mu nekk muy indi ay bàyyi defal yàlla yoo xam ne nii seen teraanga jàpp nañu ci diine lañ ko war a def ak ci nit yi diine donte noonu la amee nag ay sens contraire am ñoom seen seen alal ci caaxaan rek lañu koy def ak tëgg ko mu pecc financé koo xamante ni caaxaan don ak tëgg fecc ngir turóoñ lañ la cay tudd ak ngërëm lañ la cay ngërëme foo xamante ni iblis ko moom waaye ci ngay gise nag koo xamante ni amul benn salaire amboose wuñ ko fenn signewul contrat fenn yàlla la signenteel contrat yor daaraam yor lu ma téeméeri élève ay yor seen añ yor seen reer yor seen ndékki su añ jotee ñu teg ñetti mbana te mban gu ci gën a ndaw dina jël dina jël vingt cinq kilos bis bu yàlla sàkk nga yekk ceeb xale yi lekk bu suur nga yor ñeenti soxna soxna su nekk mu ngi boot juróomi doom baa juróom benni doom nga ràbb sa njaa sa njoowaan mbaa sa gong jaaxaan ca kaw soo wàccee ci tool yi yor sa leefaay jaaxaan ñoo yàkk bool yi nga lekk bu suur ñu tegalam njar teg ataaya tibb boolu gan teg fële am nga néegu gan goo xamante ni ko sonn ñëw fanaan fa te dencoo dërëm loolu teraanga fa man aaran an fa in lahu ma'ishatan danka teraanga mën naa dàq loolu sunu maam yeeg sunu sëriñ jàngal ñëpp kër goo ci dem dëkk boo ci dem ñeent soxna la yor teg ay mbana bu lekk jotee ñu teg buur yi añ ak reer ak ndékki yelwaani ko ñaani ko ci suuf si lañ koy amee di ko bay di ko di am di defar nit ñi di leen jëmee ci seen borom subhaanahu wa taala nga ñëw nag ci taax yi gis koo xam ni am na fukki million ci banque bi yor oto bu rafet ci bundu këram am ay chéquier ak gasoil bu doy boo xamante ni moo ko moomal boppam bu añ jotee kopp su tuut lañ koy taajal boo ko bettee mu ne la lu tax yëgluwuloo boo matu bu ne restaurant dina la añ doo añ la muy sol ci ndimo lépp boo ko boo boo ko nattee matul ñetti mètre mu sol ko mu ne xiit dënn bu koll bi génn ci biti cëram yépp de marqué wu loolu loolu loolu du sag bu sàggee ko boo ko bette doo añ kon fa man aarada an zikri fa inna lahu maishatan danka waaw yàlla nee na képp ku ma defal teraanga nga foye ka duma ko nangu waaye di nga dund gu karaj dund gu métte métte moo tax sëñ Tuubaa nee na salli ala baabil yàlla yàlla nga dolli xéewal ci buntu njub ba te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan la maam mu ni naayil ma daa muuli na daa kookaa raw ñëpp te mooy naddi may ay xéewal yoo xam ne doo xam fu mu jóge bëgg Moustapha topp ci Moustapha mooy maye xéewal yu dootul jeex lay sil ida kooku gaynde noonu ya la kooku mooy dàq alkande baabil ula wal karam yi kooku ay buntub kawe ak buntub taraanga wa sallimante nga sëlmal alal amin yàlla nga musal faw abadan ca kañ tudde amin te mooy kañu wóolu zaakal makiinu wal matiinu zaakal mujiiru wal xamiinu bi si sanaa yi waxtarami sëriñ baa ma nee na zaak boo xamul ki may wax nii kookaay ki fi indi dal kookoo dëgër zaakal mu jiiri wal xamiini kookaay aji làq ja tey bari ja njëriñ làqe kookooy làqe ku làqu ci moom raw nga àdduna ak alaaxira ndax àdduna kenn dootu la làq ci ginnaawam di la toroxal boo duggee bàmmeel foofa la la gën a mën a làqe ndax da nga tegu ci njub ba boo yeggee sa nawle ya nga fay fekk nawle nga leen di teg muy euh, mun ki rek mu nàkkir lu ñu la laaj nga tontu ko koo koy waa ji mu ngoog bi si sanaa yi waxtari mi kooku mooy yeyoo tagg te yeyoo ormal jërë ngeen jëf mbokk yi kon ñu teg foofu suñu baaraam ba àjjuma jële ñu ñëw euh, ñu ñu jëm ñu ñëwaat ak yéen ci li ci des incha allah jërë ngeen jëf seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye loon ci waxtaan wi Pape Ablaye Dieye l'in l'infatigable moo ne woon ci technique bi Oustaz Alioune Sall moom lay bàyyee place bi mu ñëw yéen ci tafsir bi bu ñu paree ñëw ci alxaaji Mbàkke Sylla mu ñëw yéen ci xamtu guddi incha allah dina ànd ak aalimul allaama alxaaji imam Mor mu ñëw ak yéen ci al minbar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa